bëgg gis nga sa bopp suñu yaay maam Diarra Fam moom la Sen TV tabb ngir mu nekk nu bébé bi nga xam ne euh, tey jii nag incha allah dalal nañ ko fi nga xam ne mooy l'hôpital Dominique bu diwaanu pikin sama yaay na bébé bi góor la nga def bleu sama yaay dafa dégg ah, yow da nga dégg da nga dégg ndax ba ba mbay ba muy ba muy choisir lu mu war a jëndal bébé bi ma ne ko kuy juddu zéro heure xamaguñu lan la waaye sama yaay ñëw def blanc bu toog bu baax wane ni daal tey chéréem lay teeru si fii ci l'hôpital Pikine man nag sama yaay bopp la ñëpp xam nañ sama digganteeg moom jarul discours euh, muy cër boo xam ne da nga ko mérito macha allah bu ko seen TV joxul sax dara jaagi am nga ko waaye macha allah euh, mën nga ko mën nga am leneen lu dul lii sax ndax euh, yàlla baax na yaayu Sénégal daal mooy maam Diarra Fam mooy marraine bu bébé de la l'année ñi ngi feek nag maire bu commune bi di Cheikh Diop waaye tam ki nga xam nit mooy médecin chef bu l'hôpital bu Dominique bu Pikine bi ñi ngeeg moom ci kanam ñu ànd dugg ci saal ba laataa loolu sunu yaay national day daal di nuyoo nuyoom bu sew nuyoo feeling yi mu ko tàmmale am ak ñun bu ko defee ñu ànd ak moom daagu dem ci saal bi yaay maam jaara fa nuyoo asalaamaaleykum euh, Sénégal asalaamaaleykum département de Pikine euh, maa ngi nuyu euh, góor jigéen mag ndaw à travers la Sen TV bi nga xamante ne tey moo ma defal honneur fekk ma ci sama département ba pare def ma marraine bu bébé de l'année 2023 yàlla def nag ñuy wër ba mu juddoo ci département bi nga xamante ne man fi laa juddoo parce que c'est pas facile d'être né à Pikine te man yàlla def na ni sama carte d'identité fu ma mën a nekk ci àdduna nee à Pikine rek moo ci nekk du changer département bii ma nekk nekk ci député tey gagné département bi ci laa juddoo ci laa yaroo ci laa màggee ci laa jànge ci laa fekk baax dem bitim réew dellu siwaat ñëwaat dans le département de Pikine euh, li ñuy wax naan euh, jàmbaar dawul dafa wuti doole fii laa njëkk a defee sama première stage ci ci région médical bi nga taxaw tey avec le docteur Salif Guindo je pense que kër gii nii miin naa ko trop kër gi xam naa ko mais ma fi ñëwee dama fekk sama doom euh, koo xamante ne moo bokk ci maire yi nga xamante ne yàlla daf leen jox maqaama ñu tabb leen ci liste bi nga xamante ne moom mooy yeewi askan bi xale bi di Cheikh Diop di xale bu am daraja di xale bu yaru di xale bu baax mais aussi ma nekk fi ak sama nawle koo xamante ne mooy la vice-présidente à l'Assemblée nationale di l'honorable député Fatou Gueye xam naa ni dina ñëw ci kanam donc je pense que mantu te yëf yi maa a ginnaaw raay nag ñëpp ñëw ñëpp a ngi sama ginnaaw donc ma ñëw tamit fekk fi Pikine wax dëgg yàlla sama xol sedd ñëpp a ngi fi monsieur le maire Cheikh Diop suñu xol sedd na mais ñu ngi nuyu bu baax ki nga xamante ne mooy médecin chef district bi mais aussi di ko euh, sargal di ko tatagal ci liggéey bu rafet bi nag ndax defe naa ni fuy waay toll rek dégg na ñun dans nos plaidoyers ñuy waxal li nga xamante ne mooy l'hôpital de Pikine ak district sanitaire bu Dominique bii ñu taxaw tey ndaxte lii nii dafa war a bokk ci patrimoine historique yi nga xamante ne mois matière de santé la parce que district bi lu mu polarisé moo bari ba pare nekk district boo xamante ne bëriwul doole nekk au cœur de la ville de Pikine accessible à tout moment mais quand même manque de moyen bi fi am ñun ñëpp a xam nañ ko moo tax à chaque fois dans nos plaidoyers du ñu yëkkati suñu kàddu di ko kaasal di wax ne nañ ko dolli ay moyen di nuyu maîtresse sage femme bi nga xamante ne suma collègue la di ko sant bu baax di wax ni que ni liggéey bi nga xamante ne moom la def tey ba euh, ndeysaan Eh, indi bébé de l'année lu am solo la parce que travail jéeg bu dugg xale bu eh, jigéen bu dugg travail nga di ko suivre ndànk duwaate ko di ko xool di ko làmb di ko xool di ko xool ba mu ñor xom nga mën a expulser à l'heure nga bàyyi ko ba minuit pile nga sànni ko mu génn loolu ça mérite des applaudissements loolu sa sam dëgg a koy def loolu avec une très bonne formation te ñun nag fii ñu nekk nii muy Dominique on a reçu de très bonnes formation moo tax bi ñu génnee fii dem bitim réew aussi on a eu la chance de travailler avec ay tubaab mais dañu mës a fonk dañu jox cër parce que loolu la ñu jàngal liggéey la ñu jàngal ca formation bala ca formation merci beaucoup monsieur le maire joxal monsieur le maire mu ñaan kàddu jub ci biir man man maa la leen dalal il faut nga wax parce que fii Pikine Ouest la ñu ngi ci Pikine Ouest man maa waroon njëkk a wax sax d'ailleurs dalal leen yéen ñëpp Euh, ba ñu nuyoo ñi fi teew ñëpp di leen sant di leen gërëm euh, di am mbégte euh, en tant que maire de la commune de Pikine Ouest ñu dalal encore une fois parce que l'année dernière c'était pareil dalal nañu bébé de l'année fii nga xamante ni mooy centre de santé Baye Talla Diop ex Dominique mu nekkaat mbégte tey ñu nekk première fois ñuy ñëw di témoigner le bébé de l'année dans notre commune loolu nag bu amee dañuy sant euh, centre hospitalier bi yëpp commençant par le médecin chef madame euh, docteur Faye euh, ñu ngi tamit gërëm vraiment toute l'équipe donc de la maternité sans que honorable li expliqué je pense que lu technique la effectivement professionnalisme la kon ñoom ñu ngi leen ci gërëm bu baax a baax a baax waaye tamit di gërëm donc délégation bi ma àndal maa ngi ànd ak madame le maire Ndeye Bigue Ndiaye Euh, waroon ànd ak tamit honorable Fatou Gueye dañ koo jiitu ndaxte dañu am ñaari activité foofu la ñu dépêché tey ñu ñëw effectivement bàyyi li ñuy def pour mën a vraiment activité bi nga xamante ni bu am solo la ci 2023 bi ñu dugg ci avec un bébé euh, donc euh, de sexe masculin yaay ji nekk seeni càmm ñu ngi koy félicité bu baax a baax ak papaam Ndiaga Thiam ndaxte loolu bu amee vraiment fierté la encore une fois si suñu gox donc kon ñu ngi jaajëfal toute l' équipe vraiment donc avant ñuy dugg maa ngi remercier aussi euh, le CDS te bu ñu waxee CDS bi euh, dafa am koo xamante ni double casquette la la sol ci CDS bi muy euh, monsieur Mamadou Thiombane mu nekk en même temps sama auxiliaire sama délégué mais aussi nekk ci CDS bi waaye tamit ñu ngi nuyu madame Nogay Seck tamit ak équipe bu bi yëpp ak toute l' en tout cas sanitaire donc du centre. de santé Baye Talla Diop donc mun nañoo dem euh, sans tarder dem def visite des lieux pour ñu mën a en tout cas être en contact avec voilà donc balaa ñuy dem peut-être ñu jox médecin chef mu sànni kàddu euh, donc balaa ñuy dugg ci biir merci beaucoup. donc euh, dañuy daal di dugg ndax nag euh, yaakaar naa ne waxtaan bi du ci biti ci biir la bu ñu duggee léegi ci kàttanu borom bi daañu gis ki nga xam ni it moom mooy euh, ki nga xam ni moom moo accouché léegi daal di nag indi ki nga xam ni moom moo di bébé de l'année madame Dieng maa ngi koy nuyu mais maa ngi nuyu particulièrement ki nga xam ni mooy médecin chef bu district bi mbay tey laa ko mës a dégg téléphone tey laa ko mës a gis ku simple ku humble wan ma yar lool macha allah maa ngi lay nuyu ci biir daañu am occasion gën a mën a waxtaan waaye tam di nuyu aussi madame Dieng mi nga xam ne moom laa jokkonteel sànq waaye moom it mu wan professionnalisme professionnalisme boo xam ne kenn du ko naatable ma ñëw nag fekk fi un jeune maire te buñ ne jeune maire dañ ko tabb ci gox rek wane na ni gox ba am na lu mu fa wane ba tax ndaw yi wóolu ko kon monsieur le maire Cheikh Diop bi nga xam ne moom mooy maire bu commune Pikine Ouest fii mooy Pikine West kon monsieur le maire Mame Diarra Fam sama yaay ak euh, médecin chef ak ñoom madame Dieng ñoo leen ñu dem ci biir rek ak délégation sama yaay Mame Diarra Fam sama yaay nag sama yaay nag madame madame Dieng ñëwal madame Dieng ñëwal ana ana ana ana ana monsieur le maire ana monsieur le maire euh, médecin chef médecin chef bi ana mu ñëwal ñëw leen euh, macha allah macha allah ñu ngi dugg ñoo ngi dugg nag euh, ci nu ñu koy tuddee suite de couche. waaw ah, gis nga léegi ma nekk sage femme suite de couche ñu ko duppee mooy salle bi nga xam ne gannaaw accouchement fa la ñuy tëral yaay mu noppalu mbokk yaay nag ñu ngi nii macha allah jot nañ fi def ay ay pétales de rose de macha allah macha allah yaayu bébé euh, macha allah ah, moom nag xale la nag xale la ah, macha allah macha allah macha allah soxna si Thiam. ñoo ngi lay nuyu. ah. Thiam na nga def. Thiam bu ko yor ceeb. ah comme ay man ay xale saareen laa yore moo tax yow Thiam bu ceeb ah. ah. macha allah macha allah. Uh-huh. moom. daanaka te am ndey baay. ah te bañ nuru caameen yi. Euh, comme comme niñ koy waxee. Mhm. n'est-ce pas. Mhm. mantu. ah jigéen lii rek lay ñaan yàlla lan la sa taaw la. sa ñaata doom. sa quatrième doom. ah macha allah. nga am chance su nekk tey euh, bébé de l'année ah ñu ñu jox yëf yi cër bi euh, député Mame Diarra Fam muy man ma ñëw fii ci département bi. fekk fii maîtresse sage femme bi nga xamante ne moo la jàppale ba nga ba nga am doom. Hmm? yaay nag maîtresse faw mu expliqué ñu. waaw ah yaay dékk ko micro bi rek. naka la eh, bi ñëwee. ah. Eh, salaamaaleykum maa ngi nuy ñëpp ñi gërëmee yàlla yont bi sa ñu ngi gërëm suñuy waajur vraiment eh, di rafetlu bés bi torop bés bi xawoon na métti ci ñun de toute la journée dañoo yendoo yendoo daw. pour rek euh, la euh, am bébé de l'année yàlla mi dara tëwul ñu am une maman qui est venue à décès presque daanaka sonaluñu fi ñuy xalaatee naan dina wasin ak wasin même pas 15 minutes yàlla def minuit pile yàlla may ñu ko. donc xéewal la vraiment ñaani jàppa ñi ñu doon ñaanal ñëpp jàpp lañ ci soo ba tey ñoom mère docteur tout le monde était là ak l'équipe de choc ñi yendu ak ñi fanaan ñëpp. ñu ngi ci woon ci affaire bi pour rek mu réussir ba ñu am bébé de l'année bi kon ñu ngi koy sante yàlla vraiment ñu ngi kontaan trop jërë ngeen jëf merci beaucoup mu ngoog euh, dañu indi léegi kado yi ndax sama yaay nag euh, euh, daal dinay jox loo xam ni it macha allah bébé bi la ñu ngi ciy ñëw léegi en attendant ñu ñëw ci sa moo yaay di ñëw ci monsieur le maire Cheikh Diop mi nga xam ne wax naa ko nee naa fu ñu nee un jeune maire rek am na lu ne ci ginnaaw ndax nag xale balaa ñu koy fal dafa am lu tax ñu ngi la ciy félicité déjà waaye tam di la rafetlu dalal gi ñu dalal ci sa commune ñu ngi ñëw ci yow léegi waaye dañuy ñël médecin chef docteur Faye docteur ñëwal dañ laa fekk si nag ngay ku dal ku teey macha allah. Ah, waaw waaw moom waaw moom nag. tous les docteurs hmm? hmm? sont comme ça. waaw yàlla moo leen ko defal. loolu moom man maa la ko wax parce que and non non non du du solidarité corporelle la sax hmm? mais lu ma lay wax lu nekk li docteur di jàng non xajul ci boppu infirmière xajul ci boppu sage-femme moo tax ñun on a a on a pu décrocher avant def li gën a yomb ñoom nag ay jàmbaar lañ mais bu ñu ci demee ba pare yàlla da leen may xolu muñ boo xamante ne ñoom rek ñoo ko am donc ñun dañu war di leen wormaal bu baax yàlla na leen yàlla fay parce que bu ñu feebaree ci yéen rek lañ ñëw ah généraliste yi ak loo mën nee naa leen docteur sax du faj boppam parce que docteur bi sax day feebar di faju di fajee docteur bi dafay feebar di faje mais quand même yàlla may na leen yar ak dal boo xamante ne yéen rek yéen ko am waaw mu ngoog docteur Faye mooy ngay nar a euh, sànni ci Sen TV waaye tam suñu honorable bi nga xam ne euh, moom mooy Mame Diarra Fam nga xam ne mooy marraine bés bi mm-hmm. Sen TV neen dañ la bëgg gis dañ la bëgg gis Mbaye yaa gis docteur euh, bismillah bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñoo ngi ndokkale soxna Sini Thiam ci bébé bi mu am ci euh, nouvelle année bi mu nekk bébé de l'année ñu koy félicité di félicité borom këram ci bébé bi di ñaan yàlla na yàlla def bébé bi dund am ndey ak baay yàlla defal ko sutura yàlla defal ko xéewal mu saaw ci ci famille am yëpp di jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di euh, rafetlu aussi euh, taxawaayu honorable député ndax moom mooy marraine bébé bi ren vraiment ñëw na ànd ak délégation di rafetlu également taxawaayu le maire de Pikine Ouest xam naa le maire de Pikine ville sax moom normalement dafa waroon ñëw mais dañu am beneen bébé de l'année boo xam ne moo nekk Dalifort te comme daaw bébé de l'année fii la woon moom tamit fii la ñëwoon ren aussi mu dem Dalifort c'est normal comme ça mu mën a wër district bi yëpp comme poste yi bëri na fi Euh, ñuy euh, remercier également di profiter ci occasion bi di féliciter sunu sage-femme yi ah à commencer par la maîtresse sage-femme ci liggéey bu rafet bi ñuy liggéey macha allah ci suba ba tey ñoo ngi fi di xaar le bébé de l'année di ko gàttandu ba ñëw na yàlla indi ko ci ci jàmm sant yàlla te yàlla na ci jàmm topp aussi. di euh, sant di gërëm di nuyu aussi CDS bi parce que ñoom it tamit ñoom ak ñoom a fi nekkoon ci suba ba tey. vraiment di gàttandu bébé bi ak personnel bi yëpp waaw personnel u Dominique yëpp maa ngi leen di nuyu di leen sant <laughs> di leen euh, jaajëfal aussi di leen di profiter toujours de l'occasion pour vous féliciter ndax on est à la fin de l'année mais depuis ba année bi commencé ba tey macha allah toogoo leen benn yoon yéen a ngi bay seen waar li leen li ngeen war a def yëpp ci population bi yéen a ngi koy def pour offrir des soins de qualité à la population donc voilà félicitations <laughs> voilà merci beaucoup. merci beaucoup euh, moom mooy euh, médecin chef bi fii ci district sanitaire euh, bu Dominique ñu koy wax Baye Talla Diop ex Dominique mu ngoogu. Ah, dafa mhm. tur bi ki ñu ko jox dama la siy leeral il fut le premier militant du président Abdoulaye Wade dans le département de Pikine sama kër laa ñëw Baye Talla Diop di ko xamante ne. Euh, li mu liggéeyal le président Ablaye Wade ci département de Pikine ñun mënuñu ko donc ñu xool xool ba maire yi fi nekkoon toppatoo ba jël kër gi jox ko tur bi loolu lu am solo loo xamante ni la luy luy luy gaaral mag ñu baax ñi la parce que Pikine dafa bari mag ñu baax boo tuddee Baye Talla Diop ci la bokk nga tudd Pa Kabiru Mbodj ci fi maire ci la bokk nga tudd Biragey Cheikh Thiam ci la bokk nga tudd ay mag sama papa Daouda Fam ci la bokk ay mag yoo xamante ni ñoo ngi nekkoon dans le département de Pikine di liggéey liggéey bu am solo Baye Mbaye Diop conseil municipal donc département bi ñu nekk sama sama sama député dem ba sekk yàlla na ko yàlla yërëm dem ba Demba Seck waasur sekk ñooy mbaaw kooku nga xamante ni dafa def département de Pikine lu am solo loo xamante ne ñooñu bu ñu amee chance ñëw taxaw fii te fekkee seen jamono saafonte ak ñoom liggéey ak ñoom liggéey bu am solo ak Salif Guindo mi nga xamante ne moo fi nekkoon fii nekk fi message chef district tey bu ñu ñëwee ba fii taxaw nekk fi marraine du ñu bañ tudd leen pour wax ni mhm. tur bi tur bi rëy na ba ñu ba ñu sentir ñun nii biñ fiy ñëw amoon nañ intention def lu ëpp suñu xol mais waxuñu nag ñaari caameen yi nga xamante ne tey <laughs> ñoo jur sama jëkkër bi mais quand même la féliciter papa ah wax dëgg yàlla yi fi neex na. neex na si xol nga am bébé de l'année yow tamit nga nga gën a góor góorgóorlu gën a jàpp soxna si bu baax de. bébé de ne ñëpp mënu ngoog sama yaay day génne ay kadoom ndax moom it bañ ko waxee ne ko yaay marraine bi ba tey desul waaye en attendant mbay eh, dañu daf ñu dalal moom monsieur le maire de la commune de Pikine Ouest monsieur le maire Cheikh Omar Diop mu ngoogu moom da ciy sànni quelques kàddu sama yaay. ñu indi en attendant euh, monsieur le maire sànni ci kàddu ci li nga xam ne tey Sen TV def na ko andi li nga xam ni it moom moo di mbégte ci sama yaay maam Diarra Fam waaye ci ki nga xam ni it wax dëgg yàlla juróom-ñeenti weer ko ëmb benn fan xaw laa faat buñ la dara jaalee ak i cadeau yu mel nii sa xol war na sedd. merci beaucoup. Euh... ñu ñu ñu la ñëw. Mhm. waaw merci beaucoup euh, soxna si na def seeni jàmm na ngeen def mbaa yéen a ngi ci jàmm nag euh, ça s'est bien passé j'espère waaw waaw ah jàmbaar nga de félicitations ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ah monsieur Thiam ñu ngi lay ñaanal tamit wér topp ci comme niñ koy waxee ah voilà monsieur Thiam ñoo ngi lay ñu ngi lay féliciter ah lii moom vraiment je la te honoro ngeen vraiment commune bi yëpp ñu ngi ciy kontaan bu a baax te di leen ñaanal tamit seen couple bi yàlla gën ko entretenir voilà gën leen boole boole leen ay xéwal te at mii ñu dugg tamit muy 2023 mu nekk atum naataange atum wér-gu-yaram atum ubbeeku waaye lépp loo xam bébén ngeen am ci lu sut seen njort ñu ngi di jaajëfal bu baax a baax di leen félicité merci beaucoup merci. waaw kay mu ngoog monsieur le maire mbay mbay mën nga ñëw xool sama yaay maam jaara faam teraanga yi nga xam ne andil na ko bébé de l'année dara desul yii moom xanaa pour yaay la yaay yii pour yaay la yaay est-ce que soxla na yii ah xale yi waaw xale yaay. yaay yaay wasin bees la yaa ngi caméraman bi gisul. sama yaay wasin bees la de. wasin bees la nag mbay dox daje lañ ko jox dox daje yaay. yaa ngi dugg ci erreur yoo xam ne. ah lépp a ngi ci biir ah. ngi ci biir de. yaa ngi def erreur de. dana dana baax. ah wasin dañ lay wax ne la. Hmm. boo bàyyee ba ñeent fukk guddi. Hmm. ba mu paase. Hmm. ba meret bi wàcc. loo def dagan na. am benn problème. <laughs> sama yaay maam Diarra Pape mu yaa ngi nii yoo xam ne. sama yaay sama yaay da koo andil ki nga xam ni it moom moo di yaayu bébé xam naa ni jug bi dina metti lool ndax wax dëgg yàlla yaa ngi doogu jugee ci ci ci table d'accouchement bi waaye teraanga la yoo xam ne ay valise la ak yeneen yoo xam ne sama yaay dafa indi sax ba indi yuppalaa dafa andi sax ba andi yuppalaa boo xam ne ci kanam tuuti moom bébé ci kàttanu borom bi mën na ci toog ah mi ngi ne gis nga gis nga mbay sama yaay dafa andi ba andi yuppalaa maanaam paan yi ni sange bébé ak yëpp mi ngi ci waaye ay yëre bébé ak yëpp macha allah sama yaay maam jaara faam andi na ko daal andi nag la nga xam ni ak ay yëre bébé mi ah bokkut ak valise ba tey yaay ah déggal loolu mbay déggal mi yii bagage bébé la dafa am bagage bébé nga ko sol ah maanaam xottil na la tudd bi déjà ah eh macha allah macha allah macha allah macha allah macha allah. waaw. ñun tam. waaw monsieur le maire tamit nee na dafa am enveloppe boo xam ne da koy jox suñ suñ suñu suñu yaay bébé ah. buur géwal moo koy joxe. buur géwal moo koy joxe. moo koy joxe monsieur le maire sama ma ñoom. buur géwal nag yow dinaa def ak yow bagage ci ruq bi ndax ñun dañoo nekk direct yow da nga ñu yàq. non du ma la yàqal de. ah parce que ah. monsieur le maire Cheikh Diop mii. Hmm. bu ñu defee pikin. nekk Pikine yaru di xale bu baax. xool xale bu loo xam si te moom bokkali mag. Ah. yaru ah. am discipline. Mhm. woo ko ñu ne ko kaay nekk suñu maire. Mhm. waxul kaay ma nekk seen maire de. ñooñu ko jëli mu tëdd meegam ñu fëgg ko ne ko kaay nekk suñu maire kon bu ñëwee di joxe enveloppe seen TV ñëw fi di télé boo xamante ni moo mën ci jamono di télé boo xamante ni moo mën ci année bi ñëw ci bébé la ne Cheikh Diop di joxe enveloppe am buur géwal war na cee mën a wax lii rek la. war naa mën na ne. waaw buur buur buur mën naa mën na ne ñëwal. buur ñëwal li tax ma di la dog Aji Kodou Diop laa tudd responsable syndicat fii synthèse ñëw bii ñuy liggéey lu rëy ci hôpital bi maam jaara mi ñu mariné ñun ñaar dañoo ànd lu bari seqoon syndicat yàlla xam na ak yonent bi mus nañoo def débat sax oxygène kii tamit di maire bi di sama doom ñetti kër ñoo dox sama diggante kër kër yaayam kon sama taxaw fii li tax may wax nag mooy sunu médecin chef bi médecin chef yi fi jaar yépp a baax waaye ku gis nen ni nen a ngi ki lépp la changé ñun agent yi turu agent yi laay waxee de te xam naa ne duma liggéey si su lundi ñu ne ma lu tax nga wax ko ki yóbbuwul sunu fit jigéen la dañ daan wax jigéen day am problème waaye Fatou Ndour mii amul problème simple na dal na liggéey rek la xam yërëm jigéen ñi yërëm ñëpp maîtresse sage-femme mii nag moom sama xarit la sama lépp la. damaa yàgg naan ko madame Dieng da nga nuroog sama présidente. xale yaa ngi nii ñu ngi nii équipe bii garde tey macha allah sage-femme yaa ngi nii sama sage-femme yu ndaw yi laa leen tuddee waaye lu ndaw duñ ko def macha allah lu ñu def noonu la. kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. nuyu ñoon combaan nuyu maire Nogoy nuyu ñëpp. lii ñu def bu dewee ne yàlla nañ ko fekk ay déwén yu bari amiin monsieur le maire dañ lay bàyyi nga joxe sa enveloppe waaye boole ko dénk ay kàddu ki nga xam ni it moom moo indi bébé de l'année bi ci sa commune jàllal ndànk rek ndànk rek mbay ay jébal ko enveloppe bi boole la euh, chèque deux cent mille francs moo ci nekk di la ko ndàmpaay euh, di massa coono waaye tamit di ñaanal a ah, tout tànk bi nga xamante ni moo gën si àdduna yàlla na ko yàlla def magum kilifa yàlla na ko yàlla def mu am xamu àdduna xam-xamu alaxira am wërsëgu àdduna ak wërsëgu alaxira yàlla na yàlla def mu am lu sut seen jot yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def donc ñu ngi encouragé tamit monsieur Thiam vraiment ah lii moom a ah, Pikine voilà donc Pikine moo ci gagné donc c'est Pikine ki gagne di gërëm tamit donc la marraine donc honorable euh, voilà donc moom li mu wax sànq rek doy na sëkk ci Pikine waaw ndaxte historique la fi wax li mu fi wax c'est vraiment c'est de l'histoire donc kon kooku ku fekkewul yaakaar naa ni doo ko wax kon ñu ngi ko ci jaajëfal di ko gërëm bu baax ak cadeau yu am solo yii mu indil en tout cas madame Thiam euh, ñu ko ciy gërëm parce que ñun la ko defal tamit en tant que maire de cette commune di gërëmaat tamit le personnel ndaxte seen professionnalisme seen mën a liggéey yaakaar naa ni médecin chef wax na ko sànq parce que moom moo nekk ak yéen moom moo leen mën a évaluer moom moo mën a wax seen njàmbarte ko wax voilà tout simplement sa place donc kon tey bu ko waxee ah dañuy dañ ciy topp ci tànk yooyu di leen gën a encourager ci fi ngeen jàpp ngeen bañ ko bàyyi li ci kanam nag raw bët waaw ndaxte lépp ci liggéey lay commencer ci liggéey lay jeexee donc ñu ngi souhaiter par la même occasion bonne et heureuse année à toute la population de Pikine Ouest mais également à tous les départements 2023 mu nekk atum nataange atum ubbeeku atum jàmm ndaxte jàmm ci lépp la xaj ba ñu koy encore di célébrer ay ati at te kenn bañ a manqué yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def ci ay kàddu ndaw asalaamaaleykum loolu la ñu bëggoon Sadji jërëjëf. bu Pikine Ouest moom la ñu si commune am sama nag dañ koy bàyyi mu dékk micro bi ki nga xam ni it moom moo di yaayu bébé. bu mu sànni ci yenn kàddu rek laataa sama yaay di tëj jotaay bi ñu delloo waa Sen TV antenne bi ayca. waaw madame Thiam na nga def euh, bi mooy sa ñaata doom. quatrième. bi mooy sa ñeenteelu doom. loo sentir tey xanaa kontaan rek ba ma fiy ñëw xaw ma woon fu may jaar. ndax uh-huh. xam nga kenn ku ne booy am doom moom ñëpp xam nañ li ngay. Uh-huh. sentir waaye mu ñëw alhamdulilah fekk fi ay sages-femmes yu baax. Uh-huh. accueillir ma accueillir bu normal. macha allah amu benn problème. kon yow yaa ngi leen di gërëm di leen sant. di gërëm di leen sant. di tamit sama sage-femme yi ma doon suivre fële pédiatrine. fan nga doon defee sa visite prénatale. pédiatrine fii. pédiatrie bu fan la. bu Pikine. ah pédiatrie bu Pikine bi. waaw maa ngi gërëm ñoom banaa waaw ñoom Fatim. waaw ñoom Fat Bintu xam naa ne bu dee ñu ngi may seetaan. ñëpp ngi lay seetaan gërëm naa leen sant naa leen. ñoom tamit suivre nañ ma ba ma agsi fii macha allah am woon benn problème. Uh-huh. ñu doon ay sages-femmes yu baax. Uh-huh. yu am yërmande. Uh-huh. macha allah maa ngi lay gërëm yow tamit. sant la bu baax di la ñaanal li nga bëgg sa xol yal na la ko yàlla sunu borom defal. yàlla àggale fi nga bëgg àgg. amiin di la remercier bu baax a baax a baax kontaan naa kontaan naa bu baax. amiin mhm. xam nga maam Diarra Fam fa ce que. waaw xam naa dama lay suivre waaw. Ah, da ngay <laughs> loolu kontaan naa ci. nga ñaanal yàlla yow aussi nga ñaanal tamit euh, maire commune bi Cheikh Diop. waaw maa ngi ñaanal maire commune bi moom tamit. Mm-hmm. waaw di ko ñaanal bu baax gudd fan ak wér. Mm-hmm. waaw di ñaanal tamit sama borom kër bi. macha mm-hmm. allah borom kër gu baax waaw. caamen bi donc dafa jar ñaan. caamen bu am yërmande bu baax waaw. caamen bu am yërmande bu baax. njaboot waa bu yërëm bu yërëm ay njabootam fonk njaboot waa yal na ko yàlla defal jàmm mu dund ba njaboot gi di ko taxawu moom tamit barke Seydina Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di ñaana sunu waa kër yëpp waa sunu waa kër yëpp ñoom ñu baax lañ sama njëkkee bi ma indi woon nday jóob waa ñoom bintu ak bintu moo nga xam ne mooy sunu yaay moom suñu peccar ga la mais dafa taxaw taxawaayu yaay ci kër ga. macha yal na ko yàlla defal jàmm. mu dund ba fekkee xale yi ñu di ko teral Bintu Siise. waaw naka ñëpp gërëm ku baax suñu peccar ga la mais nekkul peccar ga goro goro la nekk ci kër ga. ak yaay yal na ko yàlla defal jàmm. amiin kon Bintu Siise dégg nga sa bopp mais ñeneen ñi ci kër gi dégg nañ seen bopp mais sage femme yi nga xamante ne tey ñoo la tra ñoo la gunge bi nga duggee travail. ba tax ba nga nekk moment bi nga amee doom teeru biñ la teeru aussi wax nga ko teeru bu rafet la ah ay nit yu baax nit yu baax di gërëm sama peccor gi yëpp ñoom màgget ñoom kumba suma lumière may juum sama njëkk yëpp maa waaw merci beaucoup léegi Mantou je pense que c'est ça ah dafa mel ne nee nañ ñu suñu timing dafa jeex waaye en tout cas ñu ngi gërëm suñu yaay maam Jaara Fam ñu ngi koy gërëm ñu ngi koy gërëm ñu ngi koy gërëm baax na yaayu Sénégal la euh, te cër bi méritoo nga lu raw loolu sa dernier moo laataa ñuy dem euh, maison mais ak MD. waaw mais sant yàlla sant yonent bi sant Cheikhul Khadim euh, sant sama ñaari waajur mais sant le département de Pikine parce que tey yombul c'était pas facile mais sant ñi nga xamante ne mooy sama ñi ma fi fekk nga xamante ne ci si bannière Yewwi Wallu ci la gagné le département de Pikine c'était pas facile mais ñoom ñëpp dañu takk seen digg jàppale ma ba tey ma gañe moo tax fekk bii nga ma fekk ci département de Pikine yëg-yëg bu mag la ci man lii lii sag bu rëy la ci man lii sama xol sedd na ci lool Mantoulaye li ma Sen TV di bëgg-bëgg li ma bugaan di bëgg-bëgg li nga may naw naw naw li ma defal tey ma gën a lu ma mën a am maa ngi lay sant lool Ndoye euh, di ñaanal Papa Ndoye mu baax mi nga xamante ni moo la may tey mhm. ñoo togg nga bàyyi lépp ñëw ci terrain bi di liggéey di ñaanal xale yi ndax fa nga bàyyi reer ba reer sa reer baa nga ca kër ga ginnaaw raay la xaar mais di sant waa ginnaaw raay yi nga xamante ne ñooy délégation bi ñëw gunge ma ñoom jàppaan seeraas ñoom jëmb Guèye bi Biteye ñoom Bibiche Fall xale yi ñoom ñëpp ñëw nañu bàyyi seen yitte ñëw fekk si ñu fii ci Dominique maam Awa Sarr sama chargé de communication nga xamante ne moom xale bu baax la moom aussi di sant moom i dari Guèye bu baax a baax sama sama doom jooju doom coon sekk ju baax jooju mais di sant aussi Alimatu Njoon mi nga xamante ne mooy yaxu département de Pikine sama doom boobu moom aussi euh, di di gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaanal Ablaye Wade yàlla na fi yàgg tëwér amiin amiin suñu maam médecin chef bi nag andi na ay euh, mbir yoo xam ne moom it da ko jagleele suñu suñu couple bi muy ay denrées alimentaire yu am solo yoo xam ne da leen ko jàppal euh, da leen ko dimbalee ci ci ci bés bi macha allah bés bi na dana alaa daw kii nag moom mooy waajur wu góor xale bi xaw a xoj waaye kii mooy waajur bu góor bi euh, di ko jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal ñëpp ñoo xam ne it kon fekk si nañ leen fi tey fii ci département bu Pikine euh, centre euh, bu centre Baye Talla Diop Baye Talla Diop ex Dominique ñu ngi jaajëfal médecin chef bi ñu ngi jaajëfal madame Dieng ñu baax a baax a baax ñu ngi jaajëfal maire bi ñu fi fekk Cheikh Diop Cheikh Omar